aouzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci ànd bi ak seen télévision As-Samadiyya TV di jiital ci sunu nuyu ak sunu ziar nag ak cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bachir xalif général kullu murit di ko ñaanal yàgg fi lool te ànd ak ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu ko ak moom ñaanal ko njabootu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul gi yëpp taalibey sëñ Tuubaa yi ak sunu mbokk jullit yëpp mbokk yi am mbégte lool teew ci pàkk bu tedd pàkk bu sell muy benn ci pàkki jàmbaari ku tedd ki sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadul Xaadim Xaadim Rasul borom Tuubaa muy pàkk bi nga xam ne mooy pàkkub Cheikh Ahmad Diaw Paxa sultaanul arifin mbokk yi bu nu tuddee jëmm jooju nga xam ne tudd nañu Pastef bu ñu tuddee jëmm jooju ngeen xam ne tudd nañu jëmm joo xam ne ba ñëpp dajee ci wetu borom Tuubaa Xaadim Rasul doon liggéey ku xamoon na mu doon liggéeyee la ndax ku jariñu tey jii ak mboolem njaboot gi mbokk nu nekk fii nag ci wetu. xalifaam bu tedd bii nga xam ne ñëpp a ngi koy ñaanal sama borom may ko ak wér may ko fanu gudd lool mu yàgg sunu kanam yàgg jiite njaboot njaboot gi muy sëriñ Thierno jaw mi nga xam ne tey moo toog jotaayu sëriñ Ahmadou jaw Pakha ngir mbokk yi benn entretien bu tënku rek boo xam ne xam ngeen ne bu sama borom dogalee ñu teg suñu tànk ci pàkk bu tedd bii toog ci wetu jëmm ju sell ji danañu am xemmem xam lu lu mu gàtt gàtt ci jëmm ju tedd ji di sëriñ Ahmadou Diaw Paxa ndax xamle lenn ci moom lu ma tuuti tuuti mën na nekk njëriñ ci doomu aadama yëpp te njariñ la tey lay doon ak ëllëg sëriñ bi noo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jaajëfal bu baax di ñaan sama borom yàggal la sunu kanam ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel As-Samadiyya TV di la jot li nuyoo ak cantu sëriñ euh, Abdou Samad moom sëriñ Chouaïbou bu ak mboolem njaboot gépp di ñaan sa jotaay te nga bari ndam lool te nga yegg te yóbbaale ñu ñu bàyyi la nga nuyoo kon bu ko defee ñu dikk ak yow ci laaju tënk yi nga xam ne bëgg nañ koo xam rek euh, ci seen Ahmadou Diaw Pakha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayril رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bismillah asalaamaaleykum mbokki mbir yëpp mbokki taal bi yëpp ñoo leen di nuyu te di leen siyaare di gisal la ki nuyu bi ak siyaare bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul am li taifatul muridiya te ñaan suñu boom yàggal ko fi lool ba bal ko wér ayadahu wa ayadahu llahu wa nasarahu umran tawilan madidan dal xal xajal jaaji sëñ Tuba bal ko wér gu mat sëkk waaw noo ngi nuyu bokk soo jul yëpp te fas yéene waxtaan tuuti rek ci kooku yi nga xam ne moom la ñu tudd léegi mbokk yi ñi nga xamante ne sëñ sëñ Tuba la dana doon liggéeylu waaw ba kenn la ci ñoom am lu ñu ci nekk rek ci loolu duñ mën a jàpp noonu noonu fas yéene incha allah ci laaj gi ñu ko ni ñu ko laajee incha allah. waa kay sëriñ bi xam naa la la laaj bi njëkkee rek kuy waxtaanee ku mel noonu da nga xam lu cosaan li fa mu bàyyi ko fa mu gënee jamono ay waajuram ak famu mu jógee ba dem ci ku tedd gi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. moom nag pax gee cee geet ci penku saga sowu sagata foofu lu gën a sañ Paata Jaw mooy bàyyi. soxna Fatou Dieng mooy ndeyam foofee fa gane àddina ba mu fa nekkee am juróom-benn yas itam la ko xaatif ne nguur si demal jàngi jàng mooy si wàll mu daal di takkee bagage bi daal di dem tagguwul loolu ne ci loolu ne loolu ne loolu ba eh, fu fu fu fu daara ne daal dem na fa. Alaaji Malik moom mii mii mii wax ci Tiwaawoon bokk nañu jën dara. ci jàng xam-xam ba yàlla dogal la ko woowoon na ko demal jàngi waxaat ko na ko demal seet si Ahmadu Bamba moo yor li ngay wut boobee nag la dem sa la dem Mbàkkeel googu moom ñu Mbàkke la jëm lañ fa yor joxe sëñ bi boobu sëñ bi laaj ko loo tax a jóg mu ñëw yëpp jox jox la sama poche dina la xeeb moo tax a jóg waaw sëñ bi daa koy ñaanal ñu waxtaan lañ waxtaanee mu dellu pax googee Mbàkke la ko pax soriwul mu toog nag tuuti ab ay ay fan euh, tali bi dal dal yi ñu ko yi ñu sol ci kër sëñ bi tali bi dal yi ñu sol ci kër sëñ Tuubaa gi ci Mbàkke Kajoor tal tal dal yi di muulu si borom di muulu si borom ba taxal ko mun naa ah, man daal naa ñëw delluwaat ci sëñ bi laa bi ne sama mbokki tali bi yi ñu seen dal yi ñu wàññi ko sol ci kër sëñ bi waaye nee bi mu ñëwee ba accident yem ci sëñ bi rek bi mu si ñëwee bu sëñ bi ne ko man defal ni yàlla def xam na ci yàlla yàlla daa xam noppi noppi mu xam ne am kon amu ci mu daal di delluwaat fan yooyu la sëñ daan dem Mbacke Bawol boobee nag la daal di gàddaay paxa paxa daal koy fekki Mbacke Bawol boobee tàgguwuñ fi benn yoon boobee la ko la ay bay ataytu ko yaa xutbal wara min al ahli wal awtaadi gayraka wa faraxtu ahli kulluhum bika mumina wa alxaytu saa amnin ilayka nawaasiya walastu ubaali bilbaraya jamiihim saa xadibu wallahi in kunta radiya wa yaxut bu jotnii bilmuraadi jamiihi bi kaw nii min ahlillahi fillahi sahiya wa kaw nii ilayhi bi taaddubi waasila wa talyini xalbi bahdama kaana qaasiya wa toosiluni in shiita fi nisfi saatin li kawnika fi saddaari fi l ardi aaliya wa illaa fa mahma shiita yaa xutbu yaa axi fa inni muqiimun bil iqaamati radiya wa amruhi ali kulluhu qad taraktuhu bi ajli murabbi bal nasiitul ahadiya wa ma haaqani an hadrati liqubni murdatan siwa walahan fii qad kuntu lahiya walakinahu yanfo walakinahu yansa walakinahu yansa an ilmarhi in ata yanfo an ilmarhi in ata wa yansa linnusil jaybi ma kaana madiya وتفديه مني روحه والجسم سرمد أراه مرادي ودول مماتي من ولو له ما ساد الورى بهلوبهم وما كان ملحول إلى الله هاديا وساك الذي خد ودين ميت فأيا وسخصا في الأماكن ماسيا وساك الذي خدها وللم قائد وفجر ما قادوا خيون جواريا وإن بهد هذا أمده الخلب مدة خواتم مداهي مداهي فيها قد قتم قد قد قتم الخوافية ويلو جمع سيدنا كم سنبي تقول تبكي والكوكي بدار السلام بدار علم الخبير بمي سنج بكي تواجي مي أنا سنبي بس سنبي دم دم بكي جرف ما أنا مو بسنبي جمع سيدنا فوفي mu lay yi lay taxaw maam Thierno Birahim ak sëñ Issa Diagne ñoom tagguwuñ ci guddi ak bëccëg waaw tagguwuñ ci guddi ak bëccëg ba sëñ bi ñibbi si def ay mbir yu bare bare bare ci ginnaaw bi sëñ bi demee <clears throat> defal na ko sëñ bi yu xëy bët yi bëri la waaw. kon moom fa nekk rek nekk na fa moo moom. ñoo ñoo bokk nekk fa ba yàlla dogal nag bi sëñ bi ci géej gi ba sëñ bi ñibbi si. <coughs> bi sëñ bi demaat gànnaar bi muy dem gànnaar boobu moom moom moom boobu mi ngi paxa waaw diggante paxa ah, ak warak diggante boobu la nekkoon di waaye boobu boobu boobu ñëwagul gusaas boobu mi ngi foofu yi yàlla dogalee nag sëñ bi euh, tubaab yi yóbbu ko gànnaar euh, sëñ bi àndul kenn ku sëñ Fallu Mbakke ak sëñ Mourou Moussa Mbakke waaye bi mu demee nag mm, da ko xaatif ndax sëñ ma sëñ ma sëñ ma ta binta loolu moom nen la xëy dem ca di sembulu ca ca pax gi ca get toog ci sax xam di sembulu fara yaa ngi ci kaw di semb mu dégg sëñ bi ne nañ ma waale ma ci ganaar mu daal di bay jóg daal di dem ci dem daal di war aw fasam daal di di wuti ganaar ba mu ñëwee nuyoo ak sëñ bi sëñ bi da ko ne mat jaw ku woo ku leen ku ko seen kàddu du leen mu ne ko waaw kay dafa am euh, euh, ay ay ay biddeef yu fii laaj laaj yu bëree bëri bëri te man dama ne ci loo xam ne loolee bu yëwunul dara du yëwen te loolu moo fi indi te mun ma boole loolee ak di tontu ñoo ñëwee ma ma bëgg ñoo nga dem tontu leen ndax yow yaa leen raw fuuf daal jox ay leeral wax ko it na joxoñ ko it foo foo waaye fii fa la fa la naar yéen ne wax boo naar yi tëguñ ko tëguñ ko bët daal ay si ne sa ñëw na waaye tëguñ ko bët waaw waaye waaye fam ne fañ fañ ne moom xam na ko moom joxoñ woon fi ma jóg jóg daal di wuti naar ya mu ne ba mu àggee ba mu nuyoo ba tàmbali laaj laaj leen luy seen yitte ñoom sax xamuñu kii kii lay yomb kan am na jàpp jàpp xëy na jàpp nañu sax sëñ bi muy tontu di tontu di ba ba kenn na ko tàmm kullu sëy ala ma yuram anta seex mu ne ko daana xulamu fa xaala arina seex lam yabqa ila almusafaha walmuxaabara faqat lam yabqa alaan ila almusafaha walmuxaabara loolu nag bu ci desee ñu daañu ko sabablu bu gaaw a laajut leen dara amut leen li ngeen laaj kon dañu ko sabablu dem na bàyyi leen foofa dem bi wax ko ne ko ñoom day amatuñ benn yitte bu dul daal jàkkaarloo yow ak joxante yow loxo daal mooy seen yitte waaw loolu daal mooy des yitte waaye loolu amatuñ lu ñu laaj waaw waaw dañ ñu ne ko baax na daal koy daal koy jox waxtu daal koy wax ne ko ma jow de bi nga jógee fii sax di dem ci ñoom jéegu yi nga doon jéegu boo ci dooleen rek doo doo wax sax duñ xam jéego yi ngeen jéego yi jëm ci ñoom boo boo ci jéego doo sax ñu xam waaye bañ ci àggee mu ñëw ànd ak ñoom ba ñëwee ci ni kaala lañ def nii jox sëñ bi di jëbbal sëñ bi seen bopp waaw wul lay man yi nga xam ne ñoo gën a ñooy wàllu yooyu ca naa ca naari gànnaar ñooy wàllu yooyu ñooy borom xam-xam yi mooy wul day man ñooñu ñoo jëkk ñoo doon ñoo doon laajate ba xam kii mooy kan léegi na xam nañ ko ñu daal di jaxe seen bopp ñoom fasaas sëñ bi daal leen di berdel yewi leen ne timis jot jël timis ba ne bañ jil timis ab diir sëñ bi woo ko joxoñ ko mu nekk da ko nii ci te xam ne lii ab tàmbali la te loolu ñoom ñoom ñooñu rek sax ñu woolo waaw sëñ bi jox ko ma ki man di daa bëggoon waxtaan mu ne mu ne ko ah, man day luñ kayit maa ci raw ñëpp waaye ñii de mën nañu maa laaj loo xam ne kenn bindu ko te su boobaa de nga bëgg ci man doo dama dama maa war a woon alwa ma fuus ñaari wet yëpp ñaari wet àll yi ma fuus euh, euh, yëpp daal dama defee ne boo bëggee lii ma lii nga bëgg maa liggéeyal la ko da nga koy woon ma fuus yëpp al mulk wal malakut ndax ñoom ñii kër mën nañu maa laaj loo xam foofee lee ne te boobaa du am li nga bëgg ci man euh, foofu xamu ko dara waaye luñ ñu bind ko yéen maa ci raw ku yàlla bind sëñ bi ko baax na daan ko joxeñ ak kees boo xam ne gii kenn nëw na ko bu guddee dama demoon tëdd ca ci ca ca kees ga jaaxaan fa ci bulu dara tiim fanaan fa mu dem tëdd fa fanaan fa ba set mu mu dellu ci am néegam ba mu xëyee sëñ bi nag euh, na ko waaw gis naa gis naa gis ñaari yoon yëpp gis naa mulki gis naa malakoot ba yàlla bindee xalima te bindagul dara ba bis wii dem dennam bii dara ump waaw waaye nag mbàkki dama bëgg leen waxtaan man ko bisimilah wa damaa bañ ragal loolu lay nga jox ma ko ci waxtu yi nga may liggéey loolu liggéey nga nangu ko sëñ bi ne ko déedéet mat jaww su ma doon asamaan damaa la def ngay jaw te balaa kenn ñëw ci asamaan ci jaww lay jar keroog la sëñ ma jox ahmadu jaw jawun wa sayxuhu sama wal ardu taxta al jawi la taxta sama dellu na ahmadu jawun sayxuhu al fardu sama wal ardu taxta al jawi la taxta sama keroog la sëñ wax bay yooyu le nekk fa sëñ bi ñaar at yu sëkk sëñ bi yoo xam ne moom sëñ Moussa Binta Lo képp ci kilifa daal ñoo fa ne ak sëñ Fallou sëñ Mourou Moussa sëñ bi jox ndig jox jox sëñ Modou Lo Dagana jox ko ndigal na ko toogal fii fii képp ku ñëw ku mën a doon boo mel jox na la ko jox boo mel ni jox na la ko wax feeg wóoti moom bu kenn ñëw dig diir boobu mën na ñaari at sëñ bi soog a ba ma wootee nag ñëpp ñëpp nag ku mën a dem daal dem ina la si ne la sasaan xat xasado ko absal boobee la loolu xew boobee la ku mën a kon nag ku bëgg a boobee nga dem waaye diggante boobu ñu ne moom nanguwul kenn ñëw yàlla dogal sëñ ñu ànd ñëw mun al paxam muy mille neuf cent soixante-sept cent huit mille neuf cent neuf ku ceyin Tuubaa Mbàkke nun day dañ doon ñaan si ndimbal ndax suñ ko doonoom lu suñ tool yi doon béy di ma jow daa ñëw béy tool yëpp te ba wutuñu suñ béy mu leen bu ngeen demee woon ma ko ñu na ko jaay wuy sëñ bi ba mu demee ba mu ñëwee ko ma jow yow tool jàmm la ñu ko ah, man kay tool yi béy moom yow mii ko yaa koy béy yaa yow tool seen tool yi mu ne ko du ma ko béyee mu ne ko ba may mat jaw dong la sama baay góor mu mu mu mu ko jéggi ak ma boole ñëpp mbooloo ñëpp mbooloo ma ma booloo ñoo ko seen tool yi mu ne ko ok kon digal naa la mbooloo mbooloo mbooloo moom ma la booleel ànd la ñoom dem ba foo xam ne yàlla képp lañ ko moom la ñu ko toog fa ñu fa yàlla loolu mooy saw bu Gusaas 1909 1909 la la santaane ay taalibeem ànd ak ñoom ñii war ay fas ñii war ay mbaam ñii war moom mu war a fas ñu ànd ak ñoom ñu ànd di dox Saalum rek la ko wax nag waxu ko fenn sëñ baa ngi téye muy ñuy dox di ràmbal ràmbal ba ak si foofu yi nga xam ne fi naan say di muy paxa génn génn gi gis gu mag goo xam ne gii euh, gay gaynde ci dëkk ñiy jiitu euh, yëngu bi tax mu jóg jóg fi mu boofoon jóg fudd am ci boolem ñu ku ne ah xanaa du ñu bëgg a jommi ndax man ni ngi day waa gi si aw sëllu waxaay moom da nga ànd keneen xool xool ko na ko ah, yow xamoo xamoo lii gaynde la xool xoolal gen bi mu xool ko ñu ne ah gaynde la ñoom ñëpp kenn yëngatul yëngu kenn moo dugg ñu taxaw nag teb gaynde gi yéen xool ñu di ko xool ñu di ko jox ko julaate nag di ko jox ko julaate ba àgg ci sëñ ma ne ko ah fara yi jiitu dañoo daa mel ne dañoo yem ci gaynde mu ne waaw kay sëñ maam foofu la wax foofu la wax nañ nañ nañ taxaw rek bu ñu jëm kanam bu ñu jëm kanam nañ taxaw rek ñu ñu dafa sàng gaynde léegi sàng ba yàgg gaynde gi moom toppee ko dem ba mu demee bay xam ne dem na ñu ñu ñu soog ko ne ah moom de mel na dem na ba ñëwee foofu mu buufoon wala ñuy sotti seen saaku cere ya ak sangal ya mu daal joxe ndigal ñu tàmbali ko mu ne sëñ Bamba dafa noon demal ba àgg foo xam ne yàlla képp lañ koy moom leen topp fu ñu ko yàlla te kooku gaynde mooy fu mu ne kenn kenn mu ko kon foofu kon foofu tubaarkàlla sëñ lool am na solo lool sëñ Mat Jaw Paxa dañoo miin ci moom ay ay xasida yi mu daan def bayit yi mu daan sat di ko di ko way ndax da ko daan bind di ko jox sëñ bi wala da ko daan wax noonu rek sëñ bi dégg. jox sëñ bi bind yu bari jox jox jox ku ne ma maanaam borom borom yoon kenn ku ne ko moo ko moo ko sëñ bi waaye nag lu ma sa jox it denc na ko. waaye yàlla da ko nattu trente-neuf la la la la néeg bi mu nekk lakk ba jeex tàkk kii kii téere yooyu lépp ca jàll ki téere yooyu ci la lakk mille neuf cent trente-neuf ca ca waaye teewul nag tasaaroo na ba jamono Sëñ Abdu Lahat moom moom moo dajal lu li sëñ Mat Jaw ta man mii dajal naa ci dara sëñ Mahamad moom moom moom sëñ Musaa Bitélo dajal ci kenn ku ne daal dajal la ba ba ba am ba ma ci lu xaw a ba muur Louga ba moom la boole diwaanu boobu nga xëy ñi ñoom ñooy sooraw yi ñuy rajo Sëñ Tuubaa ñoo ñoo jël daal kamil waaw ñoo daal eh, baatub sultaan fan la jógee baatub sultaan sultaan ji di ko andi it mooy kii moo waxee sëñ bi ko ba mu ba mu na ko gis naa mulk gis naa dara mu futuma ci ci ci addina fi ba ba yàlla bi ne xëy ba te bi ne ko dara ba ba mu kii dara xëy bu ci àll ak ci àll ak sati xayaat ñëw ñëw moom na ko ana sultaanul aarifiin wa miqdawatul aarifiin sëñ bi daal di muñ ah loolu itam lu leer la sëñ ko def ndax aarifiina billaahi mulk la jëm malakut xaw tànniwul la jëm moom wan na ko mulk ko mën na ko te bàyyi bàyyi na ko moom kon kenn kenn mënut kenn loolu sëñ bi sëñ bi bi dëggal ko <laughs> sultaanul xaarifiin nekk na fi bu leen fi jógee téere lu mu bind dana xaala sultaanul xaarifiin wa mi xalafatul xaarifiin moom loolu mooy daa weesu sultaan bi kuddu gi ñu naan man maay kuddu gi waaw. fii laay jeexale xëy na mooy bi ñuy waxtaan léegi dégg naa teen bu ñuy wax teen bi waaw teen bu ñuy wax cosaanul teen bi. teen bi day ba mu demee 1909 la ko la ko duppi foofee ca Paxa duppi ko 1909. dix onze douze ñeenti at yi yëpp teen bi dem ba àgg ci xeel doon dañu waxaane ci la war bënne dañu am gaz ku dugg rek gaz bi sax gën na rek yuuxu ba ñu ba ñu teen bi ñu wax ko na ko na seet fel mu ne déedéet fii fii teen bi maag moom nu bokk borom sëñ sëñ Bamba fi woon ci at moom la sëñ Bamba sëñ Bamba ñu jógi téye ñëw ñëw njëriñ ba mu ko déggee rek mu daal di ànd ak taalibe bi mu jox mu taal fan da ko doon doon ba suñ maam moom waxtaan bu gi bañu àndee ba ñëw Matar Fall na la bi bi bi bi sëñ bi mën ku sukkee sëñ bi nu ko ma jëw sa sa seet mu def mu ko mbàkke bari ndox loolu te neex <laughs> ci bënn ko xay ku dugg yow te boobu bëndagul hmm? déedéet dara boobu na ma ma taras sa teen ba na ko mu sa teen man mu def mu ne ko bari ndox loolu mbàkke te neex ñu daal bàyyi loola nañuy wax dara ne ne Matar de maa ngi ko mere mere mere ba nga xamee damaa sëgg rek xóotuma leen ña ngay wax ñoom leneen waaye man déglatuma leen ndax mer naa si ndax dama ne kii laa tiit ndax moom bu gisee sëñ bi day tiit waaw bi yàlla dogalee ñu waxtaan bay ba si bi yeeyu ko Matar nee la sëñ bi dem na ba ba ba da ci digg ba sore lool ma ma ma ma si kii rek xool ko si naka dem na ma daw dawi ko bi ñu demee ba àgg rek mu ne ko sëñ bi da nga da nga da nga loo loo li nga li nga bi rek mu ne ko nu mu ko wax mu ne ko teen teen antenne am ndox bu am ndox bi ba ba ndox mu ne ko ana antenne man dama man ma ak bënn laa ak bënn mu taxoon jóg sëñ Tuubaa ne moom sa teen ba teen teen ndox ci ne da nga da nga xamul sëñ waaye su ma nee ma jow sa bënn nga ma mu ko moom moom moo waaye teen moom ndox ci ne ci guddi googee rek loolu dañ ko kalaate ñëpp dégg nañ ko doj bi kaata bi waaye xamuñu lu mu xamuñu lu mu bi yàlla ñu xëy nag am ñuy doxantu ba ba ba jaar fa ba yël ko ci ci ndox biir ñu wootante wut ab goj duy ji ñaari bidon wuteeg moom njëriñ sëñ ñu bisee ko ba nga njëriñ ba nga ci sëñ ba ci ci kanam googu ci ci sëñ njëriñ bi yàlla dogalee rek yoo yor na sëñ bi ah ñu dañoo jekki ba ci yoo yoon rek ñu am ñu wër ci suba rek ñu xëy te fekk teen bi ñu fekk ci ndox ah, ñu seet ko mu ndox la ci moom ndox mi ci la ci la ñu ko mu daal di ah Matar Fall Matar Fall mu ne jaww mu ne dëkkaay mu ñëw xam Bamba ndox ndox maa ngi nii daal ne daal dama fa fa jël ma jël daal wut bi ban demee maa ngi déglu ba xam lu mu koy wax. ma xam daan ko nii la bënn ak naa waaye mu ne ko mi la ci teen ba la ñu bëggoon nga ñaan ci waaw sëñ bi ñaan ca ñu ngi lay sant bu baax di la euh, nag waxtu yi nga xam ne ci la làqoo kañ lawon ak fan la yooyu moom moom moom la xam lool yooyu nag. am na am na am na diggante ay ay wax yu bari yu jeex ak sëñ bi am na bis boo xam ne dafa ñëw di siyaare sëñ bi dem sukk sëñ bi fotosu ko mu sukk foofee eh, raame bu ñëw sëñ bi ñëw ñëw sëñ bi sëñ bi ne ko ma jow fii nga bëgg a sukk yi yi ko léegi mu ne ko Mbàkke ma sa sa sa kër gi du fi iblis di wut mu ne ko boo ma nekkee gaboo ci sama liggéey boobee la ma fa fekkoon ma laaj ñett te boobu tël bokk ñett jooyu loolu laaj si mu ne ko mu ne ko ñett jooyu ba ñu mbaa Mbàkke ñett jooyu ñu mu ko dafa laaj ma mag mu nangu si liggéey ak jigéen ñi nangu si eh, si ak mag ak ndaw lu nangu si liggéey ak jigéen ñi nangu si ak nangu na nangu si jaamu yàlla ndaw lu nangu si liggéey ak jigéen ñu nangutu si ak mag mu nangutu jaamu yàlla mu ne ko booba jox nga leen ko mu ko waa jox naa leen ko mu ne ko ah Mbacke loo yàlla liggéeyal sa bopp su borom moom ko te yow ba ngay jógee ci Mbacke bari ngërëmal yàlla ak ak ak yonent bi doomu la taxaw ba nga yàlla ayastu bi ni iblis ñëw ba ci kër gii di jël alal ju la sëñ Bamba fee di leen yóbbu sawara mu ne fa ma jëw mu dikk sëñ ma jëw sa sa boof mu dugg ci biir sëñ ma jëw nee di diir bi yàgg na lool waaye mu boof rek ba sëñ mi ñëw sëñ mi toog fi mu toogoon ne mi ngi kaal waaye kaal nii la def kaal gi nee na ñàkk wi def soteet soteet soteet mu ne ko ma jëw ndax moo am ku ñaax baax na lool ba muy dugg gabam laa ko jot nangu nangu naa leen sëñ Muntaxa moom laa ko fii <laughs> wallaay waaw nangu leen hmm? am na bis boo xam ne sëñ bi dafa wax yoo xam sëñ Malick Ndiaye na wax fële yi ne ku du sal ma toog sal nag wuy boobu ñun ñëpp am nañ kër njëriñ moom ñooy alhamdulilah ñëpp di gàmmoo si am kër am na woon moom si yàlla di turé ak isa sëñ Isa Dieng ñoo taxawal woon ay kër. ba maa ngi daal kii ki ñu yaakaar ne ki ñuy xeeti ëllëg tey ëllëg ne ku sol sal ma toog sal na nga wuy mu ne xottu na foofu mu ne woote boobu suñ maam de bu ma wujjul man man man jow ku wuj da nga dem sawar soo wujjul ku wujj da nga dem sawar maa léegi suñ maa léegi yéen ba ba ba dajal ba toog mu mu mu dem na waaye mu bëggoon yóbbaale ay bayit bët ya nag mooy tàmbale ji salaamun jasiimun ka kër-kër dëni li seydin xala min hubay din li seydin li abdil xadimin xala jaayilan wa hibran fa mati lahoo day dani lawal baharu lawal barru wal baharu uhdi lahoo madiyi an laxan sa dani sëñ bi ñu tëll sëñ Masamba ñëpp fa lay ndax fa lay ñëw na mu ne ko ñu bëri mbàkki ñëw na mu dellu ndax ma jiw dikk na sëñ Samba laaj sëñ Samba laaj ñu ñu fekk mu toll ci ñetti biir yooyu ñëw sëñ bi yow la bërët daal di daal daal daal koy lem ci jiwam daal di ñu ñu wut ci sëñ bi waaw seetlu seetlu ay dal wax wax mu tàng daanaka bi ma agsee rek sëñ bi daal na kii na eh, ah, man ndax lamb jiw dikk na mu ne ko Mbàkke ma ma woon mu def nii mu ne ko bàyyi ko xamoon naa ci ban ki man nga ne waaye waxal fara yi ne nañ sant yàlla bu baax mu ko Mbàkke fara yi ne ñu ngi di sant bu baax mu ne ko waxuma loolu di Mbàkke man dama wax ne yàlla mi leen bind dal leen ko jaamoo te koo sawar sawara ko moyee bind àjjana bind sawara bind addina bind àlaxira bind guddi bind ba ñu bind góor bind jigéen di di lim ñaari yàlla bind ba ba fa mu mën a yem mu ne ko kooku yi la wax nañ ko sant mu ne ko mbàkke frais yi nee ñu kooku yi xamuñu ko yow lañ xam ñu ngi lay sant bis ndax mos doon nañ doon fiir waaye topp bi topp bi bu bu ngeen ma bu ma yi day ma bàyyi leen ak moom ndax moom day fekkoon seen seen naam yaag seen bàyyi fekkoon dañ ko waaye mbiruñu ñu génn am na yoon woo xam ne itam daa daa sëñ bi daa toog ak ñoom ci ñu leen ci ci ñoom ne ndax damaa bëggoon waxtaan ci ñu ñu baax ñu ñu fi jiitu mu ne ko jekk itam noonu ca jekkiloo ko yàqu sa def ba àddina sosoo ba fii fii ba àddina sosoo ba fii ñu yoxee ku ma sa jekk sob da na foofu tu a la day tural li wa ci man nafaahum li ngay salmadal lestu at foofu muñ am na am na lu mu seqoon nag euh, ñu mel ne maam Thierno sëñ Massamba ñoom ak seex yi sëñ Tuubaa nekk na moom ci kii bi seen seen diggante yooyu. ñoom ñoom ñëpp jaxasoo ak ñoom sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mudu Xari Mbàkke rek ñaan moom moom moom moom ñoom ñaan ñoom yooyu loo waaw sëñ Mudu Xari Mbàkke produit bii waaw sëñ moom am am moom bu yàlla sakk at mu yàlla daan daan daana ko am na yoon woo xam ne wii da koo gane si ku ñu wax Ndaw mooy ne jaay waa kër sëñ Mamadou sëñ Mamadou ñooñu ñooñu ñooñu ci ci ci ci xalifa bi ak ak baara ak ak ak jox sëñ àll ji kooku yi seen ndaje yi ñu ñu ñu wax ñu di uh, ko Ndaw dan Ndaw sëñ Yuusu Ndaw Yuusu daa ñëw fekk ma toog sëñ Abdou Baaxee ci këram ñun ñaar képp mu ñu nuyoo la fa daal di naa seen ñaari yi de am na ñaar ñu mu neex sëñ Moussa sëñ sëñ Baaxe na ko ñaar ñaan mu ne ko sëñ Moussa Ba ak sëñ Mat mu ne ko nu mu leen neexee mu ne ko mosu noo am menn at moo xay demul ko sëñ mu nu àggee sëñ Moussa Ba nanu gis no ina laa maana nu tàmbali ci gis daw yooyu moom mu dugg moom ci biir nu tàmbali gis bi gis bi gis bi yëpp jeex ñu soog a ñu soog a ñëw nuyoo yoon wi dafa mujj nag dañoo gars yi dañuy nuyoo man sama ñàkk bi métti loo sama sama sama yére yi daal mun mun waa dem fenn ma ne la féexlu moom gars yi dem nuyoo génn ma bàyyi ba féex ma dem may di nuyoo maa ngi fekk sëñ ma sàmm toog ci dal bi sëñ ma jëm toog ci suuf biiru ci dal bi ba nuyoo ba génn ba ba génn ma dégg sëñ ma jaww sëñ ma jaww naan ko sa yoonu ren ji moom am na naqar baax ne man ah naa diglu xar baax yi sëñ mu ne ko xar baax yi nu mu ne ko dama dem ba sàq bi am fa waa joo xam ne maa ngi kii ko xaw a sonal lool ndax mu ne sab taalibe la maa ko waxoo waxal dëgg fii dëgg rek fii jëriñ mu ah wax dëgg damaa mën yéene ci jox ko sama bopp boo ko gisee waaye dama ko yéene jooju laa dogal ba boo ko daan gis yàlla ni ma fii mu ko ah ñu ne ko yaa ngi yaa ngi wax dëgg ne mu ne ko ñaar koy defal dëgg boogee façon ñaar koy defal ay dal ko changé mosalu ko malaayika yi ne ko yaa ngi doon wax dëgg ndax tali bi sëñ Massamba day mandarga ma nay daal yi nga sol lañ xam ñëw ne ko waaw fu mu mujj ak ñoom nag ko dañ ko ne toogal foofu yi nekk sëñ Massamba lu wax ci yow ñu def ko duñ bigal duñ la bugal bigal duñ la ne sëñ Massamba ne ko sikkuwul si si daaw ne lii sàmm bi la am na yoon woo xam ne itam sëñ bi dañu euh, na ci ñoom la ñu raje muy euh, war war ngeen a sant yàlla ndax euh, ji ëpp jiñ jëpp na yeesu ndax tey yéen dañ man war ngeen sant yàlla bu baax waaw sëñ ma jow ne ma ne ko ah Mbacke nun de suñu sant ci suñu sant xamul fu mu ko tàmbalee xamul fu mu yem waaye waaye yow war gunoo sant dégg na ko yow war gunoo sant de ñu ne ko ah Mamadou Diaw lu ma leen ko bu loolu suñu turum juré ji kenn du xam si mën a fóot suñu turum ji bu loolu moom bu loolu moom kenn du xam si mën a hmm? magal gi itam euh, sëñ bi moom la woo wax wax ko wax ko na ko ma jëw da ngeen ñaan bis de waaye tey jii am naa bis yéen yéen mooy bis bis boobu nag moom bis bi nga xam ne tuwaay dañu ma am na ñu waxoon am na moo waxoon ñoom ñu waxoon mënuñ ci tus man la waxoon na sama borom ma def ko bisatu coono sama borom nag tey tey jii na ma bis boobu ba moom itam dëndam bi saa bu dul see ci déwén sa mu ful may yu ëpp yom ma mayoon fu may ma ko ci ma lot ma bëgg yéen ñi nga xam yéen nga xam lu am ci maa ko jëlee bis bi laa ko jëlee te kuy kooku ak ak ak képp foo sa ma bëgg ñu yéen sant la ma sama borom ci bis bii waaw sant nag moo mooy jàng alxuraan ak julli ci yant bi ak jàng xasaayit ak berne berne gi nag la tàmbalee ci ganaar ba ci gileem waxoo def ngi yàlla sant daal gërëm itam te ci nag yi ko jàppale mu yemal xiyamee yemal xiyam amul bis amul weer waaye buñ ci àggee ñëpp daañu xam ne bi chauffeur yi bëggu ta jël sama sama ma ko waral waaw daal ko ne lépp lu ngeen ci lawetal bu ngeen téye paaka bi na ngeen tofli ci paaka bi ne bismillah yi tubaab yi fen ngeen tubaab yi fen geen ni ngeen waxoon moom ni ci tous sëñ bi moom li ma wax nag moom def na ko mu sotti coono noonu moo noonu mukk loolu mooy nawatal da ngeen ci da ngeen di dande ba ba ngeen ko ren na ngeen wax bismillahi toow yi fen ngeen na ngeen waxoon mun nañ ci tus sëñ moom la wax nag moom sot def na ko mu sot ceet tax taw lii rendi ba rendi non non non non daane ko soo jógee na nga dem fa bal fal yi wax ko ko te nekku ñoo ko wax fële yëpp cant gii wax sëñ Balla Fall daaw da ko woolu sëñ Balla Fall wóolu kenn da ko yónni ci yi wax ko ko ni ma la ko waxee te nekk na ko wax fële yëpp sëñ ma jow bu ko waxee sëñ Balla ba noppi loolu sëñ Balla wax ma ko sëñ Balla na ko yaa ma ko wax di mu ko man maam liggéey wax la ko yaa am liggéey wax ko fële ci man ci fële yi la bokk ah bi bi bi bi bi sëñ bi wo benn sëñ bi wooye itam digal leen jàkkaam ji ci njëriñ naan ñoom jàkka la waxoon waxul juma juma jàkka leen waxoon ñoom ñoo xir rek yokku juma bañ génnee ba waxtaan ba ba jubóo dañoo la kenn ku ne ñu naan yow yaa ngi féete woon nangam yow yaa ngi féete woon nangam yaa ngi féete woon nangam sëñ Issa ñu ne ko yow yaa ngi féete woon matal bi yaa koy jënd mu ne du ma ko jëlee loxo de loo matal kenn ku jëlee doo ko loo bëgg yéen ñëpp kenn ku jëlee sasu baama sasu ñun ñëpp sasu baama sasu ñëpp baama sasu ñëpp ñun bis na ñu andi andi carnet kenn ku ne ñi na bil ma junni boobu junni kenn du ko weesu junni moom kenn ñëw ko weesu ndax boobu junni kenn mënu ko am man ngaa am ay at doo am junni ñu gën a gën jàmbaaral junni la ñu wax ñen nañuy wax ñett téeméer juróom ñett téeméer ñeent téeméer di lim di lim ba ñëpp daj sañ sañ sañ mu jëm sëñ Saliou Diaw waxal mu ne lu may wax muy wax wa sasaloo sasaloo wala mu ne man maa sasam bopp waaye man li may kenn du ko bind mu ne ko kon wax wax ko ñu dégg mu ne bis bi ne bi mu bi muy julli si jàkka jàkka am ji ma jaw du fi jënd mbaxana du fi waxaale du ñuy jaay te lépp lu ko yàlla jox kenn ku ne ah ah ah yow kat la bëggoon naa yow kat la bëggoon naa ñoom ñëpp ñu ne déet man noonu laay def noonu ci ndigal li it ba mu ko waxee ne na ngeen ko def na bisma Ibrahima. bis bis la boo xayma bi nag na ngeen ko def ne kenn ku ne am ko bis mawlid nabi yonent ko moom gàmm yoon waaw waaw yonent ko moom. tabaski it am suñu Ibrahima dama bëgg nag ngeen def ko bisu Ibrahima ba di leen yoon ñaari xar mu ngeen rey ci xam bi ci ci Ibrahima bu ñu sama bis bu ñu ngeen rey ko ci waaye nag sama bis bii nag moom tàmbale ci gànnaar ba ci gileem xëy xëy bu yëngu ñu ko man de da nga wax ne ñu sa bis bi ñu demal ko bis bi Ibrahima ñu def ko ni bis bi Ibrahima ko man man man Jaw mii di Ibrahima alayhi salaatu wa salaam mii baax baax baax du ma tus man ma am ko man man man suñ ko man ma wàll wàll yaan si ko dëgg la am wàll yaan nag moom la amul war a wattandiku a sëñ bi day kenn te te moo séddale tey lépp moomo te lépp moomo de tey nangu nangu doole yi bàyyi koo fii dem fee bàyyi koo fii dem faa déedéet kenn ku ne fa nga ne toog fa rek euh, sëñ bi boo fa toogul nag fa nga ne na euh, bu sukk joxe doo fa sukk de waaw ndax yàlla bu am na ful lool fo fo fo fo fo sa wàll dara kon nag teel ci yow baax lool teel ci yow baax lool noonu la ñu ko sëñ bi waxee mais noonu la noonu la waxee. naa kon nga nga fàttali ñu rek bis bu ak mujjug jamonoom fan la fan la génne àdduna. jamonoom day magal gii day ci ci ci ci ci ci la la ñëwee Tuubaa ndax da dafa wax ne sëñ bi da koo jox ndigal ñu andi magal gi Tuubaa mu waaj ñëm jëm si sëñ Modou far sëñ bi wàcc wàcc bi sëñ bi wàccee itam mu waaj waaw mu waaj ñëm jëm si sëñ Modou bi mu ñëwee sëñ Modou Moussa dëkk ko wax wax ko ne ko man jaw de damaa wax ne képp bis bi sëñ bi ñëw fii Tuubaa gii wax ne bi mooy bis bi gën ci ay bisam bis bi mu dayee boromam mooy bis ci gën bi gën ci ay bisam moom moom la sëñ bi ñaanoon ma bëgg war a wax tali bi yëpp buñ ci àggatee ñëpp nañ faral si Touba yandoo fee jaan ba ba jant jant jant fenk ku ko def ku ne mel nga ne bi nga juddoo ci bakkar si bi jox na ko waaw tuwarkal dal ci ànd ak moom fàttali moom la teg na fee la ko suñu boxoon dal ci ànd ak moom daal di ko gisas ànd ci def ci def loolu mu wax waaye ci wàllu bis bi bu ñu jàggee moom day lu mu am lu mu am day ni ñu koy defee rek loolu xoolaa defee moom te boobu suñ boobu defaguñ ko ba yàlla dogal suñ mun suñ mun fa nekk fi nekk fi at yi mu fi nekk léeg-léeg moom ci moom moom ne <coughs> yàlla de man la lu ne ba mu des jëlee ma fi te yëgu ma ndax sa <coughs> sëñ bi lu mu mos a digal def naa ko te digal moom la ma defagu waaye kenn xamul loolu lan la kenn xamul loolu lu mu di ko wax rek ñu di ñu di ko di ko wax rek ñu di ko dig waaye xamuñu loolu bu ñu xamuñu lu ko digalu yàlla dama mën a lu ne moo def mu fi yóbbu waaw ñu dem ba suñ mënu saa wax ci ab liggéey ñu teg ci juróomi weer suñ fa doon ñëw Gosaas ku ñu xam Matar Jaw moo ko doon conduire Matar Jaw moom mais ba tax ba jë suñu ma jaw jëkk jënd moom moom moo ko doon conduire fa la jógee ñëw si sëñ Fallu <coughs> ba mu ñëwee wàcc ba sëñ Fallu ci woto bi ñëw ci ñëw ci sëñ ma jaw na ko sëñ Fallu mu ne ko waaw sëñ Fallu ah, mu ne bërët daal di ànd ak moom daal wata bi ba mu ñëwee ci wata bi Mata Jaw bi sëñ bi sëñ sëñ Mata Jaw nuyu ko ci biir wata bi téye loxoom na ko sëñ Fallu lenn kapatee ngay sëñ Bamba arfan bi arfin lenn kapatee ngay sëñ Bamba arfan bi arfin sëñ Fallu na ko lu mu mu ne bi sëñ Bamba bii bis boo ko wootee Touba murid yëpp fekkal Touba defe naa ko yow Touba mu ne ko daa ko def mu bàyyi loxo mu wàcc am fa ñetti fan ba sëñ Fallou demee rek mu ne ma man li ma fi bàyyoon jeex na daal fekk fekk tool bay lu woon tool bu ñu récolté récolté ko mu def ko ci ay saako mu acciloo ko ay màggat ay poqe ñu acci ko ay poqe nguraali woolu ab rab ab rab bu séeréer moo waaye njëriñ googu njëriñ googu gi la nekk mu ñëw mu daal koy tëj ci genn kees rab rab rab loo ko loolu ñuy rabbi ay sor séeréer bi di ko rab di ko rab yëpp ak mu ñaw loo ko ci dara turki dara ak mbaran ak kaala daal koy def ci yow wenn wax waxan tëj ko daal di wax ne lii man moom la moom la yóbbu sama borom daal di toog moom waaw lii mooy sama càngay daal di kenn ci ay soxnaam ki gën ki gën dawe ci ay soxnaam ne ko bu dara xewe na nga wane na nga wane wax ne wii ba dara xewee suñu saa jenn ba fa nga xam moom daa buy taw guddeeg bëccëg eh, suñu saa na jox wa waxoon mu bi ko fekk ca la lépp ak ak bind jikir moo càngaayam waaw ñu ñu den ko fan nga xam ne euh, li ñu wuteeg ñun xam nga ku am ndigalal ñoon yi magal gi Tuuba bu doon nuuna bu ñëwee fekk sëñ Moussa woote bis da ko ah sëñ Bamba la nee nangam nangam nangam léegi xam ne ñoom dañoo wuteeg ñun waaw waaye euh, bi sëñ Fallu ñëwee itam bi mu amee am am am yoon moom wax ko sëñ Fallu itam ñëw ko sëñ Tuuba nee nangam méthode bi mu ko waxee xool ko lenn képp da ngay sëñ Bamba arfan bi arfan te te te moom bëggul lu dul sëñ Bamba xam xam nga loolu méthode la ah sëñ bi dana sëñ bi dana dana fi andi nag waaw sëñ bi dana fi andi ku ñu wax sëñ Omar Sëy ku nekk sëñ sëñ sëñ yooyu moom moom sëñ sëñ Abdou Sall mii dana ko xam dooy maam maam maam maam Mor Penda Sëy foofee la dëkk ci boori ko sëñ Abdou Sall parce que boo sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ moo moo fi moom moom la dajal bis ci ci ci kër mun ma sëñ Thierno de am na bis boo xam ne fekk nga ma kër so a so so nangam ñaan bokk ci ba sàq waa ba sàq yi indi fa xar mu rëy ma doon ma ma ma ne bëri toppal bëggoon bëggoon laa wax wëlal woo sama bàyyi na si ne woon sa di sa moom mook sa bàyyi ca ak sëñ bi waaye ma ñëw fekk nga yor wata wata bu fees dalak xar mën naa ah kii ka tënum man ko ah, suñ mo suñ mor boo booy boo ma ne woon dama laa yitte woo loolu boo na fee mu ne ma ah, dama xam ne daal yàlla dana nu wooy waat leen waat rek mu ne ma sama baay di maam mor fee da sëy la tudd bokkoon ci maa ngi sëñ Tuubaa yi daa bis mu ne Omar ma ne ko sëy mu ne ma andil bindukaay ak këyit ma mu ne ma bindal sëñ Masamba bindal sëñ Ibrahima Diop Masar yu bindal sëñ Mat Dem bindal sëñ Mat Diop Paxa bindal jiw di bindal jiw ba muy juróom-ñaar mu ne ma mu ne ma noonu juróom-ñaar ñii day bisu alxames di weeru koor ca xumaag ci sëñ sëñ Bamba kenn ku nekk ñi fa nga dal la fa fekk ñu la kay ba ñëwee ba ak ci bi beneen bi ba nuyu ko noo mu dara ab kabil nii ab ab téere boo xam ne da ni ci dënnam ñëpp ñëpp ñëwee ci bi ne mu xool ca kaw laal ni téere bi xoolu ko sax ma sàmba xool foofu yi sëñ Masamba xool téere bi na ah lii si kéemaan tii de léegi hmm, moom daa mel ne ñi boo ñu ñëwee ba seen tur yaa ngi nii mu ne ko ba muy ne foofu de kenn ñëwagu ci àddina ci ñoom ba muy ñëw nag ba seen tur yi na fii boobu kenn ci ñoom ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw la ma ma mënoon naa itam ku ñëw àddina ku ne ma bind la sa sa tur ndey sa tur bay waaye dama xam ne mutu ko ndax fu ma ne daañu ma fekk ñoom ñoom ñoo ñuy kenn ku ne loolu la bi bokkut ak la la la si moom waaye bi kon nga xam ne moom sëñ bi leen fi indi yaa xaadimal muxtaar laasan sa saabo man ñun sawum falmatu matun mu xattaw sëñ bi koo ko ko koo bañ a fàtte xoolal mu fi indi ay ay mbubb lu ñu joxee moo moo leen sol mbubb yëpp dama ko xëy si ak suba mu ne ma Thierno mbaa yaa boo xëyee na nga sant yàlla sant sëñ Tuba ma ne ko waaw waaw man kay boo xëyee naa sant yàlla sant la yow mii mu ne ma déet ma ne ko yaay sëñ Tuba mu ne ma maa ko fi nel waaye cant gii ma ne wax kat maa yow noo ci bokkaate noo ci bokk yëpp ba yëpp ma ne ko ah loolu xamu ko woon mu ne ma da nga xamul ne sëñ bi daa wax ne yéen ñi nga xam ne seen bàyyi dañ la ko woon yow boo ko kenn boo ko kenn kenn kenn xamul ñoom ñëpp xam ne moom dafa wax ne yéen ñi ak ñi wax ñu maa maa leen jur yéen yéen noonu la yemale képp nun la yemale képp saa borom yéen la saa borom la yéen wutale ñëwul sama digg yéen ñëwul seen digg seen borom seen digg doxul nag hmm? loolu nag loolu moo ko nettalee moom sëñ Abdou Lahad loolu moo ko sëñ Moustapha gi yarwaay moom sëñ moom boobu gi waxee moom ne sëñ wax muy dégg sëñ boobu sëñ gi ne sëñ Tuubaa wax muy dégg ne la sëñ bi saa baay suñu baay faatoo maag sëñ Assane ak sëñ sooda lu ñett la mu woo sëñ daam Abdourahmane na ko doomi mbabu yii fexeel bañ def ci ñoom def ci ñoom alxuraan mu yóbbu nu daam gii ñun di fi bind kamil mu ànd ak ñun ñu dem njëriñ ba bi euh, tàngal nu ataay joo xam ne moo def lépp lu waay bëgg daal mooy déedéet nangu kenn def ci dara moo taal moo def lépp daal ne sëñ daam ataay ji dama la ko fay ataay ji ma la tàngal loon te fàtte ko suukar te néewu mu suukar ñee daal koy gis daal daal daal daal wéet ak moom wéet ak moom jawe ko munu na ngeen dem toog ci seen ba baay gii bu leen defoon nag fu ngeen bëggee dem dem fa bu leen defee ku leen bëgg gis gis leen bu leen defee lu ngeen bëgg lekk lekk ko na ngeen toog foofu ci déglu ndigal ndigal dana leen fekk nee na toog foofu bu añ jotee añ ñëw bu leen jotee leen ñëw bu njëkk jotee njëkk ñëw ñëw nee na loolu loolu liggéey di ko liggéey di ko liggéey ba ba benn bis rek ñu ñu ñu ñu ak ñetti carnet sëñ bi ngeen ngeen ngeen bind kaamil tàmbali bind ne léeg-léeg ñun ñett ñëpp ñu ànd dem siyaare ji léeg-léeg euh, kenn ci lu dem rocc ko dem siyaare ji ne bis nag ma xëy man képp rocc ko ba dem di siyaare ji ma ma fekk fa góor goo xam ne ku mage la waaye am njoor la mu ne ca kaw sëñ bi ne ka ci rek mu tàmbali di kàllaami kenn ci doomu Cheikh yi daal mën naa la ko waaye kenn ci ñun lan la ne di wax suñ di wax ci wax bu gën a ñaaw ci àddina ne dama dama sax sama nopp loolu kenn ñëw wax suñ bi di ko dégg waaye day wax di wax di wax ba ba jeex ko xamatul wax suñ bi waaye bi bi mu ne wëriñ dem mel ne ku yedd sëñ bi ne hmm, doon ñaari yoon mu ne ku ne ku ne foofu ku ne fii ma wax mu mu mel ne daa xam ne ma ma doo ku ne fii ma ne ko ma ma ma ma ma ma gi mu ne mustoo gi man mu ne ko ma mustoo gi ma boobu mu ne ko ndax moos ne mu ne ndax moos man moom mat maa mooy ci yéen ñi ndax yéen ñi day lépp lu leen waay wax mu wax mu wax ko ñii ñu wax ne maa leen jur ñoom képp ndax yéen laa yemale képp sama borom yéen la yemale képp te leen wutale day seen diggante la ne waaye nit waaye néewul seen doon ci man néewul seen diggante seen borom si mos a ñëw yàlla moom ne sëñ Tuubaa ko wax nii moom su am ñoom muy dégg sëñ laa dellu hmm? sant bu baax a baax ah moom moom moom bi fi sëñ Tuubaa bàyyi ko ak ni mu ko bëggee woon ni mu jaxasoo ak moom nu mu defoon. sëñ Tuubaa bàyyi too bàyyi ko daa gëm benn bëtam bi man booy fa boo jul fekk naa mu gëm bëtam bi benn bëtam bi la gëm. ne ja àdduna yi sëñ Tuubaa ne ku lu ko xool yaari bët mukk mu sëñ ba dew gëmm na ji fukki at ak juróom soo koy bàyyi ko yoo xam ne benn bët mboolem nit ñi juddu gannaaw gannaaw gannaaw moom yi gannaaw sëñ bi dañoo jàppoon na appart sëñ Fallu nag moo fa ñëw bis rek mu ne ko xuleet ñaari bët na ko saa bi dara ci ku ci sëñ Bamba àdduna ji sëñ Bamba néew mooma jëral xool yaari bët daal ko jógoon <laughs> mas naa yónnee sëñ bi daanaa def itam li sëñ bi nekk njëriñ nag am na bis boo xam ne buñ ci àggee dañ dañ miraasu weeru weeru ak bis boo xam ne da ko takk da ko jàpp buñ ci àggee daal fajar lay génn la la ñu laal ko àll bu fee mu woo doog yeneen dugg ci biir biir ñu dugg ci biir génne lépp <coughs> lu moom daal di koy génne saf ko ay ruum daal di def foofu mu di jëriñ am na bis mu bind lettre bi mujj bind sëñ bi rek leçon boobu boo ko si mun taxa dafa may di munu mooy yax bi laa bëgg a gis yax bi rek la bëgg a gis doo ko wax na ko arsaltu ba defee nuyee bu waxe da ko ne kati wasil bravo Mouhamadou Diaw Paxa islam bi anni makkantu ala yaday Abdou Diaw wa ma wa wa ma huwa ala yadi Abdou Diaw wa ma kabiri Abdoulaye Diaw ramaka aw biir sew aw biir sew na tey nii liyoo silahuma ilayka hadiya barakatako xiyal marjuu wa marlatako xiyal man jamiha ma malakatu yadi ملك مجاز على يديك الكريمتين المالكتين ملك حقيقة جميع ما في أيدينا على الإجاز jox jox naa ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari góor yoo xam ne yii <coughs> ngir ñu ani ko teg ko sa waaye nag man nag tey tey bis tey jii def naa lépp lu sama ñaar ñaar sama loxo yi moomati def naa ko mil ko majaas ala yada ala yada ko krémate nil maa def naa ko ne moomeelu joxal ma sëñ bi daana ko wa jëmee maa fi ajina alal ijaas mooy li suñu loxo yi nag loolu dong la amul amul dara yaa moom lépp yaa moom lépp waaw sëñ Muntaxa bi ma ko ko ja ma ko ne ba yàq rek jox ma ma ne ko rabakata yi rabakata yi na aw biir seen tey nii ku demul ku demul xam gis rabakata yi na biir seen tey nii mu mu jind ko génn de di góor yooyu xamus ngeen dem de te mu ñu xamus jërëjëf sëriñ bi jërëjëf noo ngi sant bu baax noo ngi ñaan nag sëñ bi sawoon na nga ko ñaanal suñu boom jox ci li sëñ Tuubaa yo eh, li muy sedd ay ay ay ay ay sëtëm bu yàlla yàlla bu ko ci kenn ëppale te yàlla yàlla fiq aw fanam bu baax baax baax ndax xam naa ne ku bëgg sëñ bi la te mi ngi gëstu bi te te ndax gëstu gi may gëstu ñaanal ak sëñ bi loolu bëgg sëñ bi la nit boo ko bëggee la ngay bëgg ñu àndal waaw ayaa xaadimal muxtaari daa tan sa saxbahu man san man yan sagum fal matu matul mu xattawu te mu ngi leen di gis ñoom ñëpp bàyyiwu ci kan loolu mooy bëgg sëñ bi bëgg sëñ bi da ngay xam ñi ma àndaloon ba xam ñii mooy ñoo te it añul marhi la tasal wasalan xarini wa kullu xarini bil muqaarini yaxtali nit boo ko bëggee xam da ngay da laa da ngay laaj ñoom àndoonoon ca ca ca ñu koy xamee sëñ bi rawatina sëñ bi ndax sëñ bi ñooñu ñoo ay mbu ay mbuum la ñuy wax kenn ku ne mbuum mu ne moo la ñaw solal solal solal solal comme comme ko sol waaw waaye kenn ku ne dara dara nga woon ci ñoom ñëpp ndax sëñ bi wax ne man ko yàlla tëggoon doo ma ko tànk sëq maa yow dara waaye na boole na boole ñoo ñu ñu ay surgam yàlla nee na boole moom ay surgam waaw ñu ay su xam daal voilà <laughs> ku bëgg ku bëgg soog sëñ bi daal ñoom ngay jaar noppi waaw ca tiñ mat jërëjëf jazakumullahu xayran jërëjëf sëñ Thierno ñu koy sant bu baax a baax ti ko gërëm di bég lool ci waxtaan wi dundalaat ci suñuy xol bu baax a baax a baax ci aa euh, muritoo xam leen bu wér ne ren bañ bambay torox te déwén ñun ñooy torox te dootuñu noppee torox xulóobu man lam yoo yiboo ne ala wajëlin moo tax mu ne muriitoo xam ne bu wér na ren bañ ba mbay torox te déwén nit ñooy torox te dootu ñu noppee torox daal di wax ne da ngeen a yeexe bamba nun nu téere bamba ku yeexe bamba ñee ku téere bamba tubaarkalla xam naa ne ak rafet njortam ci sëñ moom ak wóolu wóolu gum wóolu sëñ Tuubaa ak doyloo gum doyloo sëñ Tuubaa ay jëfam moo koy firndeel ndax yooyu dañ mënees na koy wax mënees na koy ci waaye jëf yi ngay jëf moo koy firndeel Abdou Samad eh, day milaasu léeg-léeg ngir sëñ Tuuba joxe léppam des sëñ bam loolu ku rafetu njort sëriñ bi doo ko mën maanaam rafet na njort sëriñ bi te ñett yooyu sëñ Tuuba daf ne ku ko am rek maanaam jekku àdduna boo rafetee njort mën a muñ doylu doo defuk doyadi te sëriñ bi nee na doylu leen doylu leen doylu leen ku doyluwul doyadi ku doyadi am ñoo doyul waaye sëñ Abdou Samad doyloo na sëñ Tuubaa doyloo goo xam ne jëf yi muy jëf moo koy firnde te ko jaxasoog moom rek xam nga lii ma la wax yàlla na ko fi yàlla may jàmm mu yàgg. amul saako ceeb war na sëñ Tuubaa këram. leer na ma naa du jox dépasse weer saa yu xëy lu sëñ Tuubaa rek mu joxe ko. bu joxe loolu moo di rafet njort. xam nga sa njort bu ñaawee. Eh, xam nga rafet njort tabe googu tabe dafa dafa ëmb yu bëri tabe ku ku ku rafetu njort ko ku ku ku mënta muñ munu ko ku añaan munu ko. ku yàkkamti munu ko maanaam da ngay làq maq maqaama yooyu ba noppi doog a mën a joxe joxe sa alal dese sëriñ bi sëñ Abdou Samad lu baree bëree bari sëñ bi rek lay dese joxe na otaam ba tàyyi ba du amati oto jox ko ngir wormaal ngir bollaal sëñ waa bi nga xam ne moo ko def li mu doon wóolu ko wóolu ba ba lu mu am man ko cee def loolu yàlla jagleelu ko ñëpp am na ñoo xam ne danañ daan waaye dañuy téye seen poos ba du wadd salaamaaleykum <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant yaakaar naa dégg ngeen waxtaan wi eh, dooy lan suñu xol ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom la sëriñ bi def nag muy sëriñ Thierno Diaw mi nga xam ne tey moo toog jotaayu sëriñ Ahmadou Diaw paxa mii ñu doon waxtaanee eh, waxoon nañ ko ci njëlbeen lii ñu xam ci moom tey nga xam ne lu tuut la ci lim def waaye eh, doy nañu sëkk ab yóbbal nag yóbbal boo xam ne jàpp naa ne buñ ci jàppee lenn rek te jëfe ko mën nañoo jariñ àddina ak alaaxira muy waxtaan wu am am solo euh, ni ko sëriñ bi jeexale ci ay kàddoom mm, sëñ bay jaxate doon na ko wax waxal ci sëriñ Touba lu yéeme lu sedd xol te koo tudd ci gaayam ne kooku amul moroom loolu daal moo tëj kàddu yëpp rek ne ko sëñ bi waxee ci mujjantalu kàddoom loolu moo tëj jotaay bi moo moo moo tëj kàddu yëpp koo ci waxtaane rek day doy sëkk sëkk sëkk sëkk waaw foofu daaw moom mu ngoog fa mu ko teg daa fees dellu waaw mu ngoog da koo mat sëkk waaw mu ngoog noonu la ko sëriñ bi waxee kon <laughs> dégg naa ci sëriñ Bassirou Touré daana ko daana ko faral di wax naan képp kuy par loo ci doomi sëñ tubaay ci seexi sëñ tubaay ak xaside sëñ tubaay xamoo sëñ tubaa euh, muy kàddu gu am solo goo xam ne jàpp nañ ko wér a wér kon mbokk yi tey noo ngi fii kon ci pàkkub sëriñ Ahmadou Diaw Pakha euh, baat bi nga xam ne moom lañu koy dégg mooy sultaanul arifin dégg ngeen ni ko sëñ bi leerale ci kanamu sëriñ bi la ko wax ci kanamu sëriñ bi la ko wax sëriñ waaw di ko bind itam tekki sëriñ bi nangul ko ko wér a wér a wér a wér taalibe sëñ Tuubaa yi tamit képp koo làmb xolam faaw nga fekk ci cofeel gu mu ëmbal sëñ Ahmadou Diaw Pakha ndax na mu meloon ci diggam ak sëriñ bi na mu meloon ci diggam ak taalibe yi sëñ bi ak waa sëñ bi loolu moo tax sëñ bi fayee ko xoli jaam ñu bëgg ko lool nag eh, ndax fa mu teg sëñ bi kon mbokk yi euh, loolu lenn la rek ci luñ doon waxtaanee ci sëriñ Ahmadou Diaw Pakha incha allah yeneen i jotaay jàpp nañu ñu ñëwaat fekkaat fii sëriñ bi mu ànd ak wér lool ànd ak dal lool ànd ak tey ba ñu mën a gën a amaat dara ci li nga xam ne moo di sëriñ Ahmadou Diaw Pakha yàlla bu ñu yàlla euh, def yàkkamti ga na Moussa yàkkamti woon ca diggam ak xudar ba nga xam ne bu teyoon ñu gën a am ay njariñ yu gën a xóot ci ci Seydina Xudar duñ ci yàkkamti dara sëñ bi danañ ko teylu bu baax a baax donte diir bu yàgg lu mu yàgg-yàgg daañu la fekkaat incha allah nu waxtaane waat <laughs> sëñ Ahmadou Diaw Pakha kon jërë ngeen jëf mbokk sama As-Samadiyya TV mi ngi noonu kon noonu lañ koy toppee rek ngir barkeelu ci liggéeyu tedd yi nga xam ne moom la sëriñ bi def liggéey bu rëy bi sëriñ bi def ci mag ñi nga xam ne ñoo ko toppoon ak njabootam gi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu انصر جلال